الحمد لله القائل في محكم تنزيله ولن نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون kon ci ndigalul cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ibnu cheikh Mouhamadou Bachir moom mi nga xam ne tey ci dogalub yàlla ak bëgg-bëggu Serigne moom la fi suñu boroom teg mu jiite yoon wu kon ci ndigalam lañuy jotle kàddu yi daanaka sax amul luñ ci mën a dolliwaat ndax lii sëriñ bi wax leer na leer na ñëpp ko déggandoo yàlla nañu suñu borom dimbale mooy ñu ak dégg ak ak topp allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsanahu te bañ a bokk ci ñi nga xam ne qaalu sawaun alayna aw azta am lam takun min alwaaisin ndax sëriñ bi bayu dara ndax leeral na moom ba mu jugee ba fi mu agsi leeral na diggam ak yàlla suñu borom ni ñu war a àndee moom fi ñu war a nekk ci tawxiid leer na itam suñu digg ak Serigne Touba ñor gi ma ko ñor itam tax na yëmut ci wax ko waaye da koo bind jox ko sëriñ Moustapha Diatara ak Serigne Mountakha Mbacké ngir ñu bind ko ngir mu mën a tas ci àdduna sépp ndax moom li ne ci biir xolam làmmiñam mënu koo génne ndax Pastef kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom bàyyi ko fii lu yàgg loolu tam ànd ak mu yàgg jiite jataayu sëriñ Touba bi ñu fàttaliku nag bu baax bala ñoo dugg ci jataay bi suñu kilifa gu tedd ga di sëriñ Cheikh Sidi Moukhtar yàlla na suñu boroom doole ay leeram te taa suñu ci barkeem mu nekkoon kilifa gu ragal yàlla ku maalo ku taqoog jaamu yàlla koo xam ne yitteem jëpp génnutoon liggéeyal sëriñ Tuubaa danaa ci ñëw ci li ci sëriñ bi sant mu war koo leeral ci taxawaayam kon sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi njabootu sëriñ Tuubaa gi nag bu ñu ko waxee mi ngi tàmbalee ci ay rakkam jàll ci bokk yi jàll ci mbooleem koo xam ne la nga yor sëriñ Tuubaa la ko jox jàll ci mboolem taalibi Serigne Touba yi jàll ci mboolem bokk yi mu bokkal jullit ak mboolem bokki réew mi ni mu ko waxale boppam kon ci nga xam ne mooy Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne sëriñ bi xamal na ma ne ma leeral ñépp ne moom la def tey jii muy jëwriñam foo ko Serigne Cheikh Sidi Mokhtar tegoon ci yoon wi nee na tegaat na ko foofa mu féete ko fa nekk jëwriñam ci biir yoon wi kon ñi ñi ngi ñaan seen ànd boobu yàlla na ko suñu borom dëgëral ak mboolem rakkam yu tedd yi nga xam ne buñ xasee tudd sëriñ bi nga xam ne moo fi nekk sëriñ Tuubaa rek tudd na ñëpp ndax noonu la yoon wi di doxee te rafet nañ ci njort ndax kerew bi nga xamee ne sëriñ bi bàyyi na fi moo njëkk a jaayanteeg moom. ne ko jébbal naa la sama bopp àddina ak alaaxira bi ñu taxawu sëriñ bi ba noppi kon nag loolu rafet na rafet na njortu taalibe yépp te sëriñ siit dafa wax ne bi sëriñ bi waxee ngir mu ubbi jataay bi nee na yoon wi du genn kàddu bu ñaari kàddu genn kàddu rek la te kàddu gaan ci sëriñ bi moom bi fi nekkal sëriñ Tuubaa moo kàddu gi moo baat bi bu xesee wax rek ñépp tàbbi nañ ci biir kon ci leeral ndax bi nga xamee ne sëriñ bi bàyyikoo na fi dafa yónnee ni mu ko baaxoo liggéey bi ko sëriñ bi dénkoon yabal leen ci sëriñ Moussa Mbacke mi nga xam ne sëriñ bi wax na ne leeral na ne bi fi sëriñ Moustapha Bassirou jóge ba léegi mooy jëwriñam ci kër sëriñ Bassirou gépp loole itam mi ngi ko yeesalaat nam ko ko dénkoon démb tey la kooku gën a dénkawaat sëriñ si yabal leen ci moom jébbalaat ko liggéey bi ni mu ko baaxoo def ba mu agsee sëriñ bi xamal ko ne yeesalaat na ndigal li da koy dolli waaye du ko wàññi dolli ga nag mooy jëwriñ ji mu ko def kon yàlla na suñu borom yàggal ko jataay bii sëriñ bi toogee nag di cheikh Mouhamadou taxa day jataay boo xam ne ñépp war nañoo xam li mu làmb ndax alxuraan dafa santaane ñuy fàttali fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin ndax yàggut ci màggal tuubaa gi fàttali woon naa ko waaye day wax joo xam ne ñépp ci war a bàyyiwaat xel xam ne jataayam bii mu toogee di jataayam Serigne Touba ku fi toog ku ne Serigne Touba la tànn Cheikh Abdoul Ahad Mbacke dafa waxoon ne Serigne Touba ba mu xamee ne amul kenn amul ñaar te li mu yor du lenn mënu koo jox kii bàyyi kii dafa dajale mboolem li mu am def ko ci waxande waxande wa nag mu ne kenn mënu ko yootaan mu jël ceeb ji tox teg ci loxol ki mag mooy jël mbóotam rof ci biir nee na képp ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa yaa yor caabi ji nee na gaal googe nag kenn mënu ci àgg te jaarut ci ki mag mu ne nag moom itam sëñut kenn ñëw ci moom laaj ko la ci biir joxewu ko ndax seen àll bàyyi ci ne mooy loolu mooy jataayu Sëriñ Tuubaa moo ne jataay boobee nag xutbaani yéegi njëkk Sëriñ Tuubaa da daan wër bu mu agsee ci sëriñ bi nag ci liggéey bi mu doon liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa fàgguwaale ci xutbaani yéegi bu xasee ba dugg ci moom dootul génn génnati mu ne jataay boobee nag bala jaa kenn toog sunu borom dana la peese ak bindeef yi ci balaas ba nga wat leen ñu door la faa teg na bu la tegee ca balaas ba nag te watoo leen mu dooleel la ba nga wat bindeef yépp nee na bu boobaa itam mboolem asmaullahil xusna yépp wax nga ci yor rek moo ci dox nee lépp lu di yiw bu bàyyee ko ci suñu borom balaa wàcc dana jaar ci yow mu duy ci ba feesal dell mu door tasaaroo ci bindeef yi lépp loo xam ne ab nattu la balaa wàcc ci bindeef yi dana wàcc si jëmu nga yanu ci ba doyal sëkk mu door wàcc ci bindeef yi moo tax ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa yaa diggante nit ñi lépp nag jataay boobu ku fa ñëpp war nañoo xam ne jataay la boo xam ne ku fi toog Sëriñ Tuubaa teg kon sëriñ bi yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér kon wax ji moom duggutu ndax ci ñaari yëf rek lay lay tënku benn bi mooy fàttali ki fi bàyyi ko di Cheikh Sidi Muxtaar ak wax taxawaayu Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, Cheikh Sidi Muxtaar suñ borom du ko defal tawféex ndax ba mu jógee rek li ma ko seere loon ne dafa xam ne lu ñëpp bokk moo ko gënal lu kenn moom moo tax ba mu doonagul Sëriñ Tuubaa lu mu am mu moomale ko jëmmi sëñ baaraan bi ko fi yàlla tegee mu doon jëmi Serigne Touba itam xam nga ne juróom-ñaari at bariwut waaye jëf na fi jëf joo xam ne ba àdduna tukki kenn dootu ko fàtte ngir amul jënn yitte du guddi du bëccëg lu weesu liggéey Serigne Touba kon suñu borom defal na ko ci ndam ba mu agsee la mu jëkk a wax mu bokk ci naalam yi gën a jiitu mooy bëgg jullit yépp àndaloo nekk wenn say واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون سن بروم تام ديفار كو سي نيمبال توفيق توغنا في جيروم نياري اب جيروم نياري وير ген جيو مستام سي بير كاري تاريخ ييغا خا تودون نالين كون لولو سن بروم نومون اك نيارام سن بروم تام ديفار كو توفيق جوري ناخ كوني خامنا ديرو مو في نيك جيتو نا صاح موي نيك سيرين توخ waaye lim yóbbu na ci ay màkk ci alali boppam kenn xawu nu mu toll at mu jot baren ñim yóbbu ëpp na juróom fukki nit loolu kon tuyaaba la xam ne kenn xamul fu mu àgg bokk na ci jëf yi nga xam ne def na ko ndax moom dafa yokk yoon wi ndax bi wootee lépp da ko wuusi ndax 2010 bi fi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké di bàyyi ko mbirum Serigne waa moo demee noonu lu agsi rek day gën a yokk ndax Cheikh Mouhamadou Moustapha dafa mel ne moo fondement yoon wi ndax li jëkk Cheikh Mouhamadou Moustapha ku fi mas a bàyyi ko Serigne dadaa seet ci mbooloo ma topp sa ginnaaw mu yebal leen ci kenn ñu jébbalu ci moom bi Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke dikkee nekk moo tëral nii yoon yu doxe Cheikh Mouhamadou Fadi Mbacke àggale naa ne Cheikh Mouhamadou Moustapha ubbi yoon wi mooy xuloobu jumlati lazina aflaxu li tawajjahat wa rabbil muslihu muy xalifa Cheikh Mahamadou Fadil mu ubbi ko àdduna sépp xam lu yoonu murid xam lu Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw wane war Serigne Touba benn la yoon wi nos ko ba yoon yi doxee nii muy doxee Cheikh Abdoul Khadir yàggu fi liggéeyam dafa tàbbi ci biir Serigne Abdoul Ahad bi Serigne Saliou Mbacké dikkee nag. delloowaat yoonu ca cosaan la na ko Serigne Touba sose woon ba agsi ci njaareem ubbiwaat yoon wi mu gën a yaatu ba tasaaroo ba àgg bitim réew kon Serigne Touba ku ne ak lam da liggéeyloo Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñëw weddil tuuma mboolem sët Serigne yi ndax kenn xalaatutoon ne buñ demee ba gisatuñ doomi Serigne Touba yoone dana doxe nii mu doxe moo tax damaa waxoon ne bi mu solee mbubbum Sëriñ Tuubaa sol na ko ba summi te xottiku tilimul kon moo njëkk sol mbubbum zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan bil Mustafa tajtahidu bi Cheikh Sidi Muxtaar ñëwee nag àggale loolu kon ci biir loolu nag sëriñ bi bi mu agsee li nga xam ne njëkk na ko fay def mooy kër Sëriñ Tuubaa gi ci Daaru Manaan waa Matlabul Fawzayni fekk Serigne Saliou santoon leen ko ba ca biir liggéey ba yàgg mu yëkkati juróomi téeméeri million teg ko ci loxol Cheikh mu Mountakha ibnu Cheikh Mahoud Bachir mu tàbbal ko ci liggéey bi mu àgg yëmut ci biir loola ci njàmbaaram def na fa ñaari batiment yoo xam ne Serigne Ahmadou Mokhtar rakkam ji moo ko doon taxawu ñaari batiment yoo xam ne bu ñu ko doon natt tey ci wàllu àdduna dañuy wax ne ci hôtel cinq étoiles la tollu mu ñàkk ci un milliard sept cent millions yu ko ëpp kon sëriñ bi ci ñaari bâtiment yooyu def na ko ci biir siñu Sëriñ Tuubaa bi ci wàllu leeral dëkk bi ak courant bi itam ñàkk na ci lu ëpp trois cent million ci wàllu forage yi itam ci njëlbeenam ci at yu njëkk def na ci lu ëpp ñeenti téeméeri millions jumaay Tuubaa ji itam mu am lu mat juróom benn entreprise benn bi mooy waa CSA benn bi di société boo xam ne ab espagnol la bi ci des ab italien bi ci des ci ak yeneen yoo xam ne ay Sénégal lañ ci wàllu yeesalaat jumaa ji ak étanchéité bi mu ci doon def ak marab bi ak senn gi jumaa ji doon senn ak courant bi newoon ci jumaa ji lépp ñu dindi ko soppi ko def décoration biir gi ak biti gi ci biir loolu def na ci lu ëpp juróom ñaari milliards kon loolu xam nga ne ak njàmbaram kenn xamul ab ab waayam boole ci itam jumaay masaalikul jinaan te yooyu yépp itam keroog ba mu koy santaane dafa wax ne Cheikh mu taxa mooy jëwriñu liggéey bi sëriñ bi futti ko bàyyi ay iteem ne amatuma jenn soxla lu weesu sëriñ bi am lim bëgg bàyyi këram bàyyi léppam di yendu ca barab ba te bu wëttali na ko ndax ñun ñii di toll ci ndaw sax booba ñun dañuy sonn lottu te moom bu xëyee day gën a sawar jàmbaar ne ca biir waar woon sëriñ bi daal di benn commission boo xam ne commission technique la ñor wàllu liggéey ba mooy dox ba nëgëni Cheikh Mouhamadou Mountakha ci ndigalam moo ko samp kon mel na ne Cheikh Sidi Moussa junjoon na ne liggéey bi dana àgg waaye ci loxoom lay sottee ndax ku ko yéene woon loolu la liggéey boobu itam xam ngeen nam demee ndax sëkk ba ñàkkoon na ci entreprise bi ba ko yoroon lam njëkkoon wax demoon na ci un milliard deux cent waaye ci seen goo dem na ba ci juróom-ñetti téeméeri million sëkk ba rek yi ëpp na un milliard boo xoolee la ci dem ca tabax demoon na ci lu ëpp ñeenti milliard boo xoolee finition ya la ci dem lépp ci wàllu bunt yi fenêtre yi su sonorisation bi ba ministre wax ne la ci des bëriwul mooy ñaar ñaari liggéey yëpp bu ci ne ay lu la ci ëpp bu doon téeméer man nga ne juróom-ñaar fukki wala juróom-ñett fukki jeex na ñàkk na ca lu ëpp fukki milliard ak nangam kon sëriñ bi boo xoolee li mu fi jëf ci biir yoon bi bokkut ak nag liggéeyu biir yi nga xam ne ñu ko doon def ëpp na ñaar fukki milliard kon loolu jëf la jure yoo xam ne warees na koo kañ warees na koo tagg te bokkut nag kër sëriñ Touba yi nga xam ne santaane na ko muy kër sëriñ Touba gi nga xam ne mi ngi Daaru naan am na juróomi kilifa yu mu fay liggéeyloo waa kër Cheikh ña ngi ci liggéey ba sori na waa kër Serigne ma Mbacké ña ngi ci liggéey ba waa kër Cheikh Issa Dieng ña ngi ci liggéey ba bokkut ak kërug héliport gi nga xam ne itam moo ko santaane woon ñu liggéey ko mu àgg mu defarloo ko. Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa général Baye Fall bokkute nag naal yi nga xam ne Serigne bi amoon ko ci daara Cheikhul Khadim liggéey yaa nga xam ne jot nañ ko faa def loolu lépp nag fi ko sëriñ bi tàmbalee liggéey ba fa mu tàmbalee ci njëlbeen ga ba ci mujj ga lu ci ne laata sëriñ bi di ko tàmbali dafa am commission boo dafa def li ñuy wax appel d'offre appel d'offre ngeen koy xamee mooy woo entreprise yu bokkut ñu laaj ki ci gën a baax la njëkk commission boo xam ne seen yoon ñëw ci xool ko ba mu tegu ci yoon mu am bureau ñoo ñooñu di ko saytu fa sëriñ bi tàmbalee liggéey ba fii mu rëy itam mboolem lu ci génn ci dërëm facture ba mu àndal ak chèque ba lépp ma ngi ci kër sëriñ bi amut lenn loo xam ne am lante nee na ca te sëriñ bi kon moom dafa maandu ndax loo xam ne taalibe yi bañ la koy jox na Cheikh du Bawoun Darou Sam daa def rek di yëkkat almet teg ci damay wax ne taalibe laaj ñuy rusi te soxlawuñu xam fu ñu koy def waaye moom nag lu ko nit mas def rek jox rek defal na ko ci liggéey Serigne Touba bi kon yàlla na ko suñu borom dolli ay leer te taas ci barkeem sëriñ bii nga xam ne moo fi ne tey nag suñu kilifa bu baax suñu kilifa gu baax nga dafa waxoon ne ma nga ne lañuy ñuy wax ko amut bët ma nga ne waaye waaye ko amuti bët moom mënta wax ne du gis. Cheikh Mouhamadou Mountakha taxawaayam àdduna sépp ñëpp sépp xam nañ ko ndax ba mu jugee rek ni ko leerale boppam dafa jël léppam jox ko yàlla jox ko Serigne Touba topp ci ginnaaw ay kilifaam amutu bëgg amutu bañ jataayam bii ku ko xam ku ne xam ne mosu koo sooraali mosu koo bëgg dama daay yéem di wax ne moom laa gis ci koo xam ne bëggu cëru àdduna mooy lu ma leer loo xam ne du lu muy wax sax waaye danga koy dund ak moom xam ko kon xel yëpp war naa dal njort yëpp war naa rafet yëpp naan woo xam ne Cheikh Sidi Mokhtar amoon na ko yàlla na ko àggale am na rek naali boppam bu ci àggee dana ko wax ndax kilifa kenn du ko jiitu te moom moo am ndigal lu wax li ñuy wax lépp dañ doon leeral ci bëgg-bëggam am na xalaati boppam ndax moom ñëpp xam nañ ni mel te lu fi sëriñ bi ma sa def rek moo nekk jiwriñ ja jiitu ca bandam yi yépp mën a am kon ñu ngi ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba jataay bii di jataayu Serigne Touba li mu yéene liggéey Serigne Touba ci diggam ak nit ñi yéene ko ci diggam ak ñu bokkal Serigne Touba te fas yéene nee na du réer ak ñoom ci lenn li mu yéene ci liggéeyal Serigne Touba ci taalibeem yi yéene ko ci réew mi yàlla ko suñu borom may kàttan wér mu àggale ko ci jàmm te suñu borom tàbbali ñu ci ñaanoog Serigne Touba gane أدخلت نفسي وجميع أهلي في جيب أفضل وراء ذي الفضل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدنا